xew yàlla rek laay ñaan yàlla ay bu ma xew yàlla yàlla bu ma xew yàlla yàlla foo jublu yàlla fi yàlla jublu yàlla yàlla yàlla nga ses do am informatique yàlla li nga bëgg sa aduna yàlla yàlla na ko yàlla ko yàlla dama yàlla bu ma xewee damay jël ànd yàlla yàlla bu ma xewee li may dund dama neex trop di gens affaire yooyu jël ale dafay ko ne xii voilà <laughs> yàlla yàlla bu ma xewee yàlla li may dund neex na de li may dund neex na de dama bëgg ngeen ñaanal ma rek mu bañ a xewee yàlla yàlla bu ma xewee yàlla foo jublu yàlla fi yàlla jublu yàlla li may dund nee na yàlla yàlla li may dund nee na yàlla yàlla yàlla ma xew yàlla yàlla foo jub yàlla fiiw yàlla ku ma nar a xew rek ku ma nar a wala ma yàlla ay yàlla yàlla am bar yàlla nga am sato yàlla yàlla nga am yàlla nga am Ferrari yàlla ay yàlla foo jub di nuyu see xarit ñoom alay jir bi ko salaam ñoom Omar bul Xataab di nuyu ay waay yéen maa ngi leen yàlla bañ maa xew la yéen ñi xaritu yàlla yi ay waay bu ma xew waay yàlla li may dund nee ma rek mu yàlla ma xewi yàlla ko jub yàlla bu yàlla jub li may dund nee na yàlla yàlla ma xewi yàlla yàlla ko jub yàlla bu yàlla ay yàlla ku ma nar xewi rek ko yàlla ku ma nar a wala wala ay yàlla ay yàlla